gëm-gëm moom dafa baax péete dafa baax aussi péete baax na loolu waaye àddina boo xam ni kenn xamul foo boo demee ci tijaan yi ne tijaan ci dem bi ngi dem ci Amadou Ba ne boobu man fii ci xaw ma dakar bi ci laa bokk da ngay da ngay sincère sa papa nee na am xam ni dañuy bu ñu jullee fii ñaan li ñu bëgg amuñu ko tout de suite rek fi yàlla ñëw maa ngi dem dem bi loolu lay def xam nga dafa xamul Sénégal ñàkk xamul Sénégal la man ngaa jàng ba lu nekk nga jàng ko te doo xam sa réew te li gën a xam-xam moo di nga xam sa réew xam sa culture xam nit ñi bu ñuy wax nga dégg ko même bu fekkee ni dañuy wax dañuy kàllaat ak bu mu mën a doon nga dégg ko boobu ngay soog a dëkk ci dëkk alors léegi fi ñu toll donc man manuma am ñaari péti moom laa gëm moo fi soxal sëñ Tuba moom laa gëm te li ma fas yéene mooy ku fi soxal sëñ Tuba ma jébbalu Karim def loolu waaye li am solo moo di camp bi benn la ñun ñëpp ci gannaaw Serigne Touba dañu euh, ta toog taxaw euh, gëm ko li ñuy sàkku yëpp ñu sàkku ko ci Serigne Touba donc yàgg àla kulli àll yàgg yàgg yàgg beneen daje su yoonu benn la su ñu toll jëmbe nag comme réew mi dafa yàqu li war a def moo di redressé ko mm-hmm. yéen yéen wax ni mm-hmm. liggéey naa réew mi mm-hmm. def naa fi benn chef d'état deful te itam yaakaar naa ni benn chef d'état dootu ko def dina jafe boobu konte nag bu nu doxee ba lo ba situation bi demee noonu bu nu ma lulul ñu ànd tool yi suñuy effort lii ñu ñu def ko moo lii yéen da ngeen di da ngeen di jàppale Karim. parce que Karim murit la. Saalif sëñ sëñ bi moo ko ool ba ko. sama doom la sama. loolu rek doy na. Euh, waaye loolu bu ko waxee Macky Sall dégg ko am leneen lu mu ciy def. man daf man a xëy tellement que ñii dama leen wax léegi maa ngi ñaan yàlla bañ a dajeeg Macky <laughs> ba ma ko waxee kii laa njëkk wax ne ma ne yow dégg nga Macky Sall ni mu tontoo sëriñ bi ma wax ko ci meeting bi ba sëriñ bi waxee loolu lu ma ko toll man kenn du def pression ci man ñëpp daal di ko négligé naan mooy non non waxul sëriñ bi xaw ma négligé négligé négligé loolu léegi nag xanaa wóor na ni sëriñ bi lay wax waaye booba temps ñu ba jekkal rek waaye waaye non non ma kii waxu sëñ bi man ah man de ma ko noonu li ma waxoon daal yàlla xam ne na ma tey naqari na ma ëllëg parce que dama yaakaar ni bu ko respecté woon du wax loolu mën naa wax affaire boppam rek waaye man kenn du def pression ci man du du xel waxul waxul dof la waxul cëxat la su fekkente ni Serigne Touba mënul def pression ci yow. Mm-hmm. yow boobu ku lay ñaanal rek moo ñaanal parce que yaa ngi taxawal loo xam ne nii mënul a def. Mm-hmm. Mm-hmm. kon nag mag yi ñi mu lancé nii. il faut que ñu arrêté ko. Euh, tubaab yi dinañuy wax ni c'est la force qui la force loolu waaye am na ñoo xam ni du wax wax ju rafet moo leen di arrêté parce que dof dof bii nekk yi mbàdd mi di dóor <laughs> boo naan dama koy raisonné da ngay perte sa soxla. Ah, waaye bu gàddee yoon nga gàddu yet. léegi ñu normal. loolu moom moom moo tax ma ne Macky bu fekkee dafa dox ñu ne ma Macky dafa dox ma ne man danaa ko faj. man sama maam danaa faj dox. xam-xam boobu dafay dama ko yërëm franchement dama ko ay yoo xam ne nga gis ko nga gis ko xam ne kii ci kàmb gi jëm. nga wax ko ba mu dégg ko. te mënul fexe ba taxaw. seet ba fam seet fi mu jëm. loolu bu ko kii ne fii nanga naan kii wax fii rek. mu mu wax wax yoo xam ne wéeru ko fenn. Hmm. waaye la nag ñu ngi suñu kanam hmm. man lii rek mooy sama waxoon moom. Hmm. Euh, xam naa ni daal Karim bi mu jàpp di suma doom. bu fekkoon ne daf ko arrêté. génn preuve yi ni kii kat lii la def. mais danaa wax beneen langage bu mu li mais xam ne moo tooy. xëy na mën naa tooy. waaye booba tey mënul génn génne maa ngi koy wax ci télévision bi mënul taxaw ci télévision moom ak procureur am ñoom ñëpp ñu ne Karim lii la def wan ko nit ñi mënuñu ko tudd sax mënuñu ko tudd euh, Karim ba ma lancé appel cadre yi ñu leen ñëw leen jàppale moom yéen cadre yi nekk bitim réew di fa liggéey di fa gañ a xaalis loolu neex na lool waaye liggéey Sénégal moo gën mu tontu man ni ma damay ñëw ma ne ko yow ñi may wax bokkoo ci mm. yow ak suma doom bu jigéen bokku leen ci mm. parce que man mu ñëw ma ah non loolu mënuñu ko nangu ñeneen ñi bàyyi seen liggéey ñoom ñu ñu toog ci liggéey noonu ma ma xam ne wax nañu dëgg rek ñu ñëw benn daje leen ak doomu Pape si doomu si. Mm. ma daje leen sama man nag gis ngeen yéen. du ma leen jox mukk ngeen gérer xaalis du ngeen gérer xaalis jamais xanaa ministère ministère sax xam nga du gérer xaalis ministère xaalis bi ñuy def ni ministre bi am na nangam du xaalis bu ñu lay dox ministère des finances moo ko yor dañ la naan jox nañ la nangam nga def lii boo defee lii defee lii ngay bind di doxe ñu xool di financer waaye du xaalis boo xam dañ la koy jox foofu gouvernement am na droit def audit Karim kenn mën ko audité parce que xam nañu ko amul benn problème mm-hmm. waaye nag xëy xëy ñi def nga nangam yoo xam ne yow ci bopp indiwuloo benn preuve mm-hmm. lu dul wax yoo xam ne wéeruwul fenn mm-hmm. dafa dafa metti loolu na moom laa mën a nangu du ma koy wax carrément te Macky xam na ko man ko nangu du ma nangu ñu àtte ko ci kaw loo xam ne ñii àtte wax nañu ñoom li ñu li ñu bëgg a àtte mais kooku loolu mënul am ma ne ko nag xanaa nga jël sama bakkan man ragal bu may dee dem àjjana bu ma dee Xaadimu Rasuul recevoir ma foofu na xam ni loolu daal moom mënu am mënu am man du ko nangu ku ànd ci man du ko nangu samay militant du ñu ko nangu sama xarit du ñu ko nangu te danaa wax Sénégal yëpp gel lank fépp Macky mooy kan du dara jaam jaamu jaam la. tuppale yi ñoo du man ma ko xam nga borom nee na xaleel bu ree bu reewee ñu nett li ko ñongal baayam Macky xaw ma dana dégg wolof yooyu xaw ma bu ko dégg wolof dafa ni gune bu reewee dañuy baayam mm. moom la ñu wax ci Macky daal man xaw ma ko woon sax ñi ko ñu ne ma ñii ay dëmm la ñu woon dañu lekk. jëmm yi naaw mais anthropophagie mooy nit yoo xam ne ñu ngi lekk xar wala ñu lekk nit ñu génn leen sa dëkk boobu. na ma yóbbu tribunal. na ma yóbbu tribunal ñu dippamee naa ko. du dem tribunal. parce que bu demee weeru. Mm-hmm. puisque ñu ma ko wax mm-hmm. ak <laughs> ñu génn ko ñu génne leen dëkk mm-hmm. ñu dem ci pays bi dëkk bi ba dellu si. ba dellu si ci biir dëkk bi. kon nag na arrêté yi muy def. man nag dañu may wax ni yaa ko def li nekk c'est mais man man maa xool ñu sax xam ne nekk ci biir. yàlla rek moo mën loolu. def naa ko confiance. amoon naa ci moom yaakaar su ma yaakaar tas na. léegi nag mu jógee dina mooy xeex. waaw mi ngi suñu kanam. lii rek moo ci jëmaamu mu jënd maa ngi leen di gërëm. Mm-hmm. di leen ñaanal yàlla. Mm-hmm. di leen félicité. Mm-hmm. ci ñi ngeen taxawee. taxawaay bi moom nañu fexe rek. ba bés bu nuy def dara ñu